salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi leen di nuyu di leen ziare eh, ñun ñu bokk naxar wi ndax naqar wi moom du ma ñun ñi nga xamante ne nii eh, ay mag la si ñun eh, seen papa di nijaay sama baay wax dëgg yàlla naxar bi biñ ko yëgee wax dëgg yàlla ñu ñëpp la bokk metti wante yàlla moom kenn mënta xëcc moom ndax kullu nafsin ay xatil mawti maanaam bakkan bu ñam dund rek di nga ñam dee waaw ah, te wax dëgg yàlla ñoom dañ demoon pour daani seen doole mu nekkoon nit koo xamante ne wax dëgg yàlla nit ku amoon njariñ la si tafes gi nekk nit koo xamante ne wax dëgg yàlla lépp lu ñuy yëngu dina si bokk nekk nit koo xamante ne mu ngi nii tey li koy firndeel mooy euh, wax dëgg yàlla nekkoon na nit koo xamante ne tefes gi fii bari na si ay maram ñoo moroomam yoo xamante ne kenn ëpp ko woon matériel si wàllu ñàmbarte góorgóorlu ak dooleem ba am ko ndax gaal yi ñuy taxaw tey nii tiim la nii moom moo ko moom mooy gaal yi yëpp kon nga xam ne nit la woon koo xamante ne ni jàmbaar la ah nag nit ki la ngay dem di sabablu rek sa naf su nekkee sa bakkan sa la yàlla di jël ndax dem na pour daani dooleem tëmb maare ngelaw li bari ah yàlla dogal ak dogalam ñu nangul dogal gi ah waaw lundi la départ fii di pariage pour dem Maré ñu nekkee feek moom gis ko mu am si benn moolam boo xamante ne it tamit yàlla jëlaale ko si boo xamante ne mën naa ne moom bokkul woon sax si dem nga ndax ñun ñii tey man mii tey nga gis ma taxaw man ak sama rakk ñoo tëmbal suñu gaal pour war a gëti njaaylu pour wàllu lu jëm si safar gi moolam bii ma lay wax ni mu tudd bees maanaam dañ koy woowee bees mu bokk si natt suñu borom bi moom moomu tey ñëw na taxaw suñu gaal ñu ne ko njaay loolu la ñuy gëti muy tooñanteeg sama mag gi di ko wax ne ko waaw ma ñëw ñu dem bokk mu ne ko kañ dem kooku loolu moo ko dugal ci gaal gi te loolu mooy deewam waaw ma lay wax ne yàlla nag waaw nga wax bu am solo xam nga àdduna li am solo mooy jaamu yàlla gëm ni yàlla kenn la moo yónni yonente bi fonk say ñaari waajur te gëm naa ni ku fonkoon ay waajuram ndax euh, ñoo bokk benn kër moom mii génn àdduna tey li tax mu metti mooy moom ak góoram ñoo si bokk ak sama goro manit parce que ki keneen ki génn àdduna te bokk si dee sama goro sama goro la man mi taxaw ñaar ñi génn àdduna ñoo bokk benn kër gi kon loolu man ni yàlla ak mbiram moom nag ñooy toogandoo fii di naan attaaya lu su mujj di def mooy réunion ak lu mu mënti doon da siy bokk ba soog amee day jël gaalam tëmbal ko jox ñi essence ñi dem kon moom wax dëgg yàlla jàmbaar la woon boo xamante ne nii tey lépp firndeel na ko ndax tey soog bi maanaam si dégg-dégg ñëpp biñ ko déggee dañ na soog bi am na gaal for na leen. mais ku leen xool xam ni choc bi yàgg na du tey du démb ndax bu ñu teeree ku leen xool seeni yaram ak seeni melokaan xam ne lii du tey du démb waaw kon loolu lu am la leneen li si it mooy am na ndigalu waajur ndax am na ñaanu waajur mooy nit la koo xamante ni jàmbaarte mayoon na ko si wax mbaaxaay ni wàññi sa mbaax dara tefes gi li mu fiy nekk nekk nekk lu ñuy xewle xaalis di si génn dina si bokk bu nit amee soog mu jël essence am wala gaalam bokk sax leneen li si toppit mooy ay waajuram waajuram wu jigéen génn na àdduna waajuram wu góor fu nekk gaalam machine am yëpp moo ko defaral jëndal ko jox ko mu nekk nit koo xamante ne maanaam nit koo xamante ne bi mu génnee àdduna ñi dem di ko jël nii di ko yóbbu waajuram li mu wax doy na sëkk papam maa ngi taxaw papam wax ni jàmbaar dem na ah sama doom la sama taaw mu jur ko mais jàmbaar dem na ah jàmbar dem na waaye dem na ba dem si liggéeyam wante nag yàllaa ma ko jox yàllaa ko yóbbu kon mu nekkul loo xamante ne demam gi feeñ na si tefes gi ndax nit la ko xamante ne nii mooy li mu wax lépp lu ñuy yëngu si tefes gi da siy bokk. bu ñoom juróom la ñu woon. waaw juróom la ñu woon ah, mhm. ñaar ña feeñ. Mhm. ñett ña dem nga si biir wax jujju naa ko. mooy sama goro nga mooy wax kooku sama goro la nee naa la ñun ñoo pare suñu gaal pour dem Gétti Njaay ngir safar gi wax naa la ne la mu ñëw taxaw suñu gaal bu mu ñëwee ba taxaw suñu gaal ñu ne ko ah, ñun dañuy Gétti Njaay lu pour ñëw bokk si fekk sama mag ji di tëmb pour dem moom mu koy tooñ ne ko waaw rek de ma ñëw ñu dem bokk mu ne ko kañ dem loolu moo ko dugal ci gaal ga. mu dem ci gaal gi wante dama lay wax ni gaal ga ñi ci dem ñëpp ay jàmbaar lañu ñii seen jom taxul ñu sauvé ñii seen ñàkk jom taxul ñu dee ci géej yàlla ak mbiram ndax xam nga wax naa la ko ci biir kullu nafsin saayiqatil mawti maanaam ba bakket bu ñam dund rek faw nga ñam dee wante yàlla dafa tuddoon ni seen dee ci géej lay jóge wante ay jàmbaar lañu wax dëgg yàlla dañ demoon pour daani seen doole ngir njaboot nekk nañ nit ñoo xamante ne tamit wax dëgg yàlla amoon nañ doole si tefes gi ndax lépp lu ñuy def seen loxo nga sa yàlla mi dara teewul nag nga xamante ne kenn mënut a xëccoog moom te bu lay jëli du tàggu kenn ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ yàlla jégal yàlla ni yàlla yërëm yàlla nañ dajeeg malaakal yërmande te am nañ si ñoom yaakaar tefes gi nag fii ñu tàmbalee fi ngeen nekk nii teer bu ndaw ak jàmmalaay ak ko métti ndax ñëpp xam nañu at mii at mu metti si ñun la ndax noor gi deewal nañ deewal nañ ay nit ñu bari ay ñetti nit ak ñaari nit dee si géej kenn gisul seen koor ñaari ñetti nit dee si géej kenn gisul seen koor yooyu yëpp jo jàkkonte nañ ko si at wi ñu dugg nii kon bu naqar woowu amee teeru bu ndaw gële da naqar yooyu yëpp amee yàlla soppi naqar yooyu indiwaat ko si ñun lu ñuy def mooy ñun ñëpp ñu bokkandoo naqar gi te xam ne yàllaa ñëw bu yàlla ñëwee nag li si des mooy ñaanal leen yàlla yàlla jéggal leen yàlla yërëm leen. waaw euh, choc bi daal bi mu amee mën naa ne ñu yëg ko yëg bi gisuñu benn autorité bu fi ñëwagum xaw ma yëg nañ ko xaw ma yëguñu ko mi kenn dëgg dëggu fi sa tànk ndax ñaar ñuy sauvé si suba gi lañ leen teeral fii lañ leen teeral ni ñu romb nii yéeg yóbbu leen hôpital si lañ ñu ko wax ñu tëmbal si ñuy gaal fii ak fii yëpp tëmbal gaal yi dem seeti leen kon amul benn kenn koo xamante benn kilifa boo xamante ne pour l'instant rek gise guñ ne nga dëgg fi si tànk amagul